coalition peut-être ne la wax euh, faw ñu dugg ci beneen front muy front euh, social bi parce que gis nañ ndaw ñi di jël gaal euh, Doudou Coulibaly mbëkk lañ wax mbëkk nag lan la ñuy mbëkk miir lay doon wala leneen ñoom dafa mel ni géej gi la ñuy jël géej gi nag bi ñu ko jëlee gis nañu lu tolloog deux cent soixante quinze yu wax ne dañoo réer en tout cas jugee bar ñi ñuy jaale njabootu ñi nga xam ne ñoo ci loru ñëpp mais lii nga xam ne mooy jot xew ce phénomène de l'émigration irrégulière est-ce que finalement état Sénégal ngi leen dégg fan yi ñu ci wax mais président li mu wax mooy ñu jëm leen a au Sénégal maanaam fexe ba zone de départ yeeg ñu mën koo identifier mën a fexe ba gàllankoor yooyu yëpp est-ce que vous pensez que ni solution la vraie solution de ce problème am nañ ko. non xam nga <clears throat> loolu euh, solution structurelle la mm-hmm. non conjoncturelle mais il faut une solution structurelle parce que Euh, taxawu garde kenn du dem baax na mais fexe ba gaal bu taxaw fii ne maa ngi dem lambale gouvernement bu ne loolu la war a xeex maanaam amul kenn kuy jël gaal dem Guinée Bissau wala Guinée Conakry Mali bi boo amee vingt cinq mille francs dem fa kenn xëccoowu ko pourquoi gars yi di xëccoo dem Europe parce que nit ñi dañu jàpp ni bu ñu demee foofu seen condition day changer mais xam nga taxawaay taxawaay dafa am solo le Cuba avec Fidel Castro a résisté pendant des années loolu ngëm-ngëm la mais ngëm-ngëm bi lan moo ko indi c'est que les dirigeants ont sensibilisé les gens expliquer leen ba ñoom ñu nangu euh, dund les affres économiques du blocus. ba pare di résister aux Américains. est-ce que jeunesse bi dinañ déglu. waaw dafa naan yi nga xam ne ñoo nekk ci 18 millions. fu espoir am xam nga fu espoir am xam nga mooy lan espoir fu mu am mooy keroog sama kanam le premier avril. ah 2012 bi Macky Sall defee prestation de serment King Fahd Palace dafa am ñu daw ak moom ba pale ay ndaw yu daw ak yu daw ci ginnaaw otoom ba pale loolu lan la. ñoo ñoo nekk ministre ñoo ñoo nekk député loolu yaakaar la parce que lan lañu waxoon APR yaakaar. yoonu yokkute ku nekk am espoir le Mali mais bu am nañ blocus CEDEAO le peuple malien autour a fait comme un seul homme autour de la junte militaire ñu résister kon ñun tey bu ñu toogee suñu ndaw yi war nañoo mun am espoir bu fekkoon dañuy am ay dirigeants yu mot mais ñàkk dirigeant yu mot xam nga euh, Issa sénégalais c'est vrai que affaire yi métti na mais xam nga boo demee ba benn instant boo xam ne le régime fait du matin ñaar nga mun def mooy xeex jàmmaarloo wala nga gedd dem sa te booy foofu lañ toll. ci gedd boobu la ñu toll jamono ji euh, Mademba Ramata Dia ci côté boobu émigration irrégulière ndaw ñi di euh, dem di rëcc di wuti Espagne ñenn ñi même jël weneen yoon mu di Nicaragua gouvernement bi di wax ci zone de départ yi muy côté émigration irrégulière bi ñuy def wutali Espagne gaal yi euh, jàpp nga que ni c'est la bon solution c'est la solution définitive bu ñu mën a trouver pour mën a fexe ba du ñu demati Espagne jaar ci yoonu géej gi. waaw léegi dafa am par immigration clandestine léegi seetlu na ne ñu bari faatu nañ ci yoon bi ñu ngi ci ndox mi kenn xamatul lu leen lu leen kenn xamatul dara ci ñoom donc fi mu toll nii dénombré nañ lu jege cinq cent personnes nga toog nag ba ñu cinq cent lu jege cinq cent personnes faatu ci géej gi ay ndaw ci sa ndaw réew nga ne damay mener ce que j'appelle la grande offensive contre l'immigration irrégulière teg ay stratégie teg programme loolu c'est bien parce que boo bu ñu la dénkee réew aussi da nga war a réagir oui. par rapport à une situation quelconque mais léegi boo xoolee mbir mi xale yi lan moo tax ñuy dem li tax muy dem boo leen laajee dañuy wax le rêve d'un monde maire dañu yaakaar ne fi ñu jëm moo gën fi ñu ne du tax ñuy dem mooy day yàlla da leen di permettre ñu am rupture ak la misère bi ñuy vivre au quotidien lu tax ñuy dem parce dañ jàpp ne buñ demee dinañ def ay réalisation bu la yàlla dimbalee boo ñëwee di nga am makkan moom mu baax am oto bu bakkane wut soxna ak yeneen parce que loolu leen leen donc finalement loolu te loolu ñoom jàpp nañ ne munuñu ko am seen réew léegi nag lan mooy war waayu état man jàpp naa ne ñaari levier la wala kii levier bu njëkk bi mooy fexe ba ndaw yu dootuñu dem kooku mu doon réponse urgente parce que ñiy defal gaal yi fii gaal yi gars yi di demee mhm. normalement war na leen xam GPS la la gars yi di daw donc notre police identification mën na am mhm. boole ko aussi géej gi war nañ ko mën a surveiller donc war nañ fexe comme que ci géej gi lañuy dem nag fexeel ba buñ dugg ci géej gi. première solution. Mhm. première chose deuxième chose aussi nga créer les conditions d'un épanouissement social et économique pour tes citoyens. boobu moom après présidentiel ba waaw non loolu moom kay. ci ci at donc loolu loolu yooyu yooyu yooyu mooy wax ji parce que mënoo nekk am réew aussi li li li intéressé jeunesse bi jeunesse bi soxla emploi. Mhm. jeunesse bi dafa soxla nga sécuriser ko. parce que ay Rwanda yooyu gënuñu ñu doon ay jàmbaar. mais seen seen i di seen i dirigeant dañoo taxaw fexe ba ñoom ñu gëm ne seen dëkk lépp lañ fi war a mën a am. Cuba bi mu doon wax li Cuba dem na ba Covid bi moom moo doon les médecins cubains intervenaient en Europe combien d' années de de de d' xoole Iran comme d' années d' embargo donc yooyu yëpp mais le leader doit d' abord. le leadership ne se décrète pas. ça se confirme par l'exemplarité. boo ñu wanee ne bëgg nga réew mi réew mi la gënal lu ne yow tamit gars yi am yaakaar ci yow toog ci yow boobu est-ce que jàppoo que ni euh, la réaction a peu tardé quand même bu fekkente ne dégg nañu semaine bi en tout cas euh, ministère de ministre de la jeunesse dégg nañ ko euh, kàddu yi mu yëkkati le président aussi ak mesures yi nga xam ne moom la sàkku ñu def ko ak réaction d'urgence yi mu sàkku ci Euh, <laughs> grande offensive pour xaw ma lan ak lan ak na peut-être bu ñu defoon grande offensive euh, <laughs> ça me fait penser à Gowana <laughs> xëy na bu Gowana bi grande offensive boobu agricole boobu lijjantiku woon xëy na peut-être que ni euh, xale yi ñu si bari du ñu dem parce que booy seet ñu bari di dem noonu la plupart ci exode rural la ñuy la ñuy jógee ñëw Ndakaaru wala dans les grandes villes boole ko jaxase ak ñenn yenn yenn pêcheurs yi et puis et puis après jaxasoo dem dem moom moom moi je pense que ni. Euh, <laughs> euh, Issa Issa ce qu'il faut faire c'est du sax téye xale yi mooy moo war a nekk problème bi il faut pas ñi ngi wax ni dañuy war a téye géej gi machin ñiy defar gaal mais mu mënu mënuñu leen surveiller ñoom on peut pas. Euh, mën nañ ko am na tax. mënuñu ko xam lu tax mënuñu ko. joxe kaw exemple exemple Cuba ils n'ont pas résisté à ça pour pour pour pour l'histoire après le le le coup de depuis le coup d'état de 63 ak ak que Fidel Castro avait fait. Tristan xaw ma le ki ki mu ki mu defoon coup d'état en 63 mm. eh bien jusque pratiquement dans les années 83 Cuba dañ doon gars yi doon jàll rappeler que ni euh, Cuba ak ak États-Unis kilomètres euh, kilomètres comme fii ak Cap-Vert même pas ngay ngay ngay jël gaal di dem am na ñu bari ñoo xam ne jàlloon nañu daan doon ko def directement c'était beaucoup plus facile et ils l'ont presque fait pendant une quinzaine d'années plus de 15 ans donc résistance boobu moo ñëw mënuñu

forcé ci yenn façon liggéey yi euh, jàmm am fa ak yu demee noonu on a compris que ni les Cubains ont compris que ni ils ne pouvaient plus plus besoin d'aller aux États-Unis mm-hmm. jar am na sax ay Cubains yoo xam ne ñi ngi jóge États-Unis bokkoon ci ay famille ñi demoon ñi ngi dellu soit léegi au Cuba pour gën ko defar parce que y pas mieux vivre euh, euh, que Cuba donc moi je pense que ni du loolu mooy problème ce qu'il doit faire mm-hmm. mooy def seen kamtalay ba réew mi dox malheureusement